Happiness TV. Allah oh ya Allah. Allah Allah ya Allah. Allah oh ya Allah. Allah Allah ya Allah. Allah oh ya Allah. Allah Allah ya Allah. Allah oh ya Allah. ala ala ya allah ala oh ya allah ala ala allah ala oh ya allah ala ala allah wóolu naa la ngir yàlla maam Ibra naa la ngir yàlla maam ibrahima faal jaarama alaawo yaa la ala ala yaa allah wóolu naa la ngir yàlla maam ibra faal jaarama ala yaa la ala ala yaa allah alaawo yaa yaa allah وقد تم فتحي هن مهدي وقد أنت جميع الرجال خيم تحت خداي هما خطه في شرق والغرب فرفدا إلى مكة إلى لسم صداي الله يا الله باي مختار جارما ولنا لنجري على مام إبرافال جارما الله يا الله ala ala yàlla ala o yàlla Baay Tijaan Ture jaarama ala yàlla ala ala yàlla ala o yàlla ala ala yàlla ala o yàlla ala ala o yàlla ala o yàlla ala ala yàlla maam Ibra Faal jaaraama wóolu naa la ngir yàlla maam Ibra Faal jaaraama sopp naa la ngir yàlla maam Ibra Faal jaaraama maam Ibra Faal jaarama wóolu naa la ngir yàlla Baay Moxtaaro jaarama allah ya allah allah allah ya allah allahu ya allah allah allah ya allah sopp naa la ngir yàlla maam Ibra Faal jaarama wóolu naa la ngir yàlla maam Ibra Faal jaarama sopp naa la ngir yàlla maam Ibra Faal jaarama wóolu naa la ngir yàlla maam Ibra Faal jaarama alaahu yàlla ibrahima faal jaarama allahu ya allah maam ibra faal jaarama wóolu naa la ngir yàlla maam ibra faal jaarama allahu ya allah maam ibra faal jaarama wóolu naa la ngir yàlla bay moxtaaro jaarama allahu ya allah ala ala ya allah muy xaam nga jiiteeñu maam Ibra Faal jaarama allah ya allah ala ala ya allah ala ya allah ala ala